mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël suratul xajj ci aaya juróom-ñaar fukk bi ak ñett aaya 73 fi suñu borom di waxe ni ya ayuha nnaasu duriba masalun fastami'u la إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نجي يا صلاة سنت سني بروم سبحانه وتعالى تي توفيق بم نمي بن دجي تي اب نيغم دي فسيني جل اب بند تي اب تيريم لولو نيك لو ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دون ñaax waaye it doon ñu ci bégale te loolu rek moom mooy garanti xeet bi xeet bi lay garanti ba duñu réer ba duñu weddi mooy ñuy jàng ci ñoom aaya yi borom bi moom la borom bi di wax subhanahu wa taala wa kayfa takfuruuna wa antum tutla alaykum aayaatu naka ngeen di weddee te ñi ngi jàng ci yéen seen aaya aayi borom bi mu nekk danger bu rëy bu ñu demee ba jullit ñi teqalikoo ak alquran boobu loolu it da ngay gis ne jural nañu lu bari ñoom ñoo ko def seeni xol ñi ngi ko jël at ko ci ay jaami yàlla au lieu ñu at ko ci yàlla comme li ngeen dund ci lu bari ci semaine bi yéen ñiy seetaan télévision yeeg journaux yi da ngeen gis lu bari ci lu feeñ ci loolu ñu wax kon loolu mbir la moo xam ni jullit ñi war nañ ci taxaw bu baax ñu ngi sant yàlla bi ñu fi yàlla dajalee yàlla nañu yàlla nangul di ñaan it yàlla nangul mbokk jullit yi nga xam ne ñoo jël seeni effort ba créer lenn ci ay jumtukaay yuy tax ba waxtaani lislaam yi ñuy def ca jàkka ya ñu mën koo tasaare ba mu yegg ca kër ya yegg ca marché ya yegg ca ña nekk seen oto di tukki ca mooy ñi nga xam ne ñooy taxawee surtout xam sa diine bi ak ñi nga xam ne ñooy taxawee li nga xam ne mooy dégg diine bi ak ñi di taxawee sunna tv am na it mbokk yi nga xam ne ñoo yor surtout xam islam point com bi ñoom ñëpp ay nit lañ yoo xam ne ñi ngi jóg di sàkku tuyaaba di tasaare kàddug yàlla yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul leen te fépp fu kàddu go yegg it ñun ak ñoom yépp yàlla boole ñu ci yërmandeem kon incha allah dañuy dañuy bàyyi sunu mbokk Cheikh Ousmane mu jëlal ñu bind bi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا تنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا الله سميع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سن بروم تبارك وتعالى من يا أيها الناس أي نني ضرب مثل فاستمعوا له دور نن بن مثال دغلو لين مثال بوبو إن الذين تدعون من دون الله ñi nga xam ne yéen a ngi leen di woo gannaaw yàlla lañ yaxluqu zubaaba duñ mën a bind benn weñ ba mukk wala wi cama uula doonte ne dañoo daje woon ñoom ñépp it duñ ko man wa in yaslubuhum zubaabu shay'a bu dee weñ daa këf ci ñoom dara la yastanqizuhu minhu duñ ko mën a nanguwaat ci moom da'ufa taalibu wal matlub lompañ na kay sakku ak ka nga xam ne nii moom la ñuy mooy aji sakku ja maa qadarullaha xaqa qadri sunu borom mu ne nattuñu yàlla dëgg-dëgge nattu inna allaha la qawiyun aziz sa borom yàlla subhanahu wa taala may borom kattan gi mooy ka nga xam ne moo not lépp al qawi mooy borom kattan gu targa al aziz ki nga xam ne not na lépp allahu yastafi min al malaikatu rusula yàlla day mooy tànn ca malaaka yi ay yonent wa min an nas di ko tànn it ca nit ña inna allaha samiun basir seen borom yàlla muy aji dégg muy aji gis lépp ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum xam na la nekk ci seen kanam ak la nekk seen gannaaw wa ila allahi turja'ul umur te ci yàlla lay dellu la nga xam ne mooy mbir yépp mbokk suñu boroom dafa woo doomu aadama yi mboole seen te mbokk it alquran xam leen ne ñëwul pour wax ak julit ñi alquran dafa ñëw pour wax ak nit ak jinne ña gëm ak ña weddi ñépp loolu moo tax ba misal bi julit ñi ñoom mucc nañ ci waaye war nañ koo xam di ko leeralal yéeféer yi ngiree mu dellu leen gannaaw sunu borom yàlla lu muy wax ci loolu maa ngi leen di dóoral misaal déglu leen ko ca lu ëpp ci doomu aadama yi ay wax yu bari ci benn misaal lañuy gën a gaaw a comprendre comme niñ leen koy waxoon fii ci lenn lu scientifique yi di wax un bon chemin vaut mieux qu'un long discours sunu borom mu ne ñi ngeen di woo ci duñu yàlla ñooñu na doon ay malaaka lañu am na ñoo xam ne jibril la ñuy woo ñooñu na doon ay yonent lañu am na ñuy woo isa ibnu maryam am na ñuy woo uzayru wala ay nit simple lañu am na ñuy woo ay waliyu yàlla ay sëriñ comme ni mu amee Sénégal ak fépp sun borom yàlla subhanahu wa taala ne ñoom ñépp day bind ñu benn weñ ca ñoom ñépp bu ñu daje woon duñ ko bind ba faw mbokk bind yàlla subhanahu wa taala doo nga koy def doomu aadama kay lim man mooy la yàlla bind mu daje la ko am lum ca defar waaye bind à partir de zéro yàlla rek moo ko moom gannaaw ba bind lu am ruux suñu borom nee na duñ ko def ba ilaa yumi diin loolu depuis quatorze siècle la ko yàlla waxoon dem nañ tey ba doomu aadamaa ngi defar ay avion bal ay fusée yuy dem ci biir jaww ji doomu aadamaa ngi toog fii jël ay wax di sànni fu nekk ay image waaye ba suñ jamonoy tey doomu aadama xalaatul abadan ne mën naa bind lenn loo xam ne dafa am ruux abadan moo tax suñu borom joxe misaal ci weñ ne duñ ko def mukk bal la yéeme mooy waxuma bind waaye mbindaa fanu yàlla yi bépp cër bu ca yàqu sax doomu aadama dañuy gis ne day lott pour defar ko masalan benn waaye ngi ne ay bëtam yàqu na àdduna yépp buñ daje woon mënuñu koo mayet ay bët abadan bët bi mën na feebar ñu faj ko mais yàqu na jeex na mi ngi noonu ba kon na ku siiwoon te bu jëkk ñu koy wax Stevie Wonder nekkoon milliardaire musicien bu siiw yàlla nattu ko mu silmaxa doon na wax ne bu mënoon a joxe trésoram yépp ca xool àdduna nu mel jaral na ko ko ndax musul gis àdduna nu mel loolu itamit la ñuy wax ci cër yépp sunu borom mu ne duñ ko def même buñ ci daje woon léegi mu ne même benn weñ bu ñëwoon ci seen xërëm yooyu këf ci moom dara duñ ko mën a nangu ci moom te booba mi ngi wax ak waa màkk yi nga xam ni dañu amoon ay xërëm yuñ daan samp di ko jaamoo donte ne loolu itamit day dellu ci képp koo xam ne la ngay jaamu amul yëg-yëg ci li ëpp ci jullit ñi tey li ñuy jaamu mooy bàmmeel yi li ñuy jaamu moom mooy bàmmeel yi ci journalu tey rek am na ñuy tagg seen maam nee nañ suuloon nañ ko cent ans gannaaw ba ñu sulliwaat ko dara sikul ci moom ñi lire yeen journaux yëpp xam nañ li muy wax tey ji rek su ko defee loolu da ngay gis doomu aadama yi xabru yu mel noonu fa la ñu riir jëm soxla yi ñu waroon diis suñu borom yëpp moom lañ koy diis suñu borom yàlla nag ne mais xabru bi bu amoon lu tag ci kawam amul lenn lu mu ko mën a dindee loolu la yàlla waxoon ci xërëm bi waa makkay jaamu nga xam ne dañ ko daan parfum ak di ko defal lu nekk mu ne bu dee weñ di woon na tag ci moom am lu mu jël ci moom mënulu ko dara sax loolu suñu borom yàlla wax mu ne xoolal da'ufa taalib waa ji sàkku am ñu koy delloo ci weñ wa wal matlub ak kañuy sàkku muy xërëm ba donte ne am na ñuy delloo daw fa taalib mooy nit ka nga xam ne yaay yaakaar xërëm di ko jaamu wal matlub ak xërëm ba mooy kenn gënta lompañ gënta ñàkk fayda gën a ñàkk solo kii dem di woo leneen lu dul yàlla te it leneen lu ñuy woo ci du yàlla da ngay gis ne mënul ci loolu dara loolu mbokk mi ngi noonu dem nañ nag ba yenn borom xam-xam yi nga xam ne dañuy def ay comparaison ci découverte scientifique yi ak aayey borom bi am nañu gis ne lii di weñ ñii di naaw lépp loo xam ne da koo jël bu duggee ci gémmiñam rek day désintégré wu daa di changé dafa am liquide bu nekk ci gémmiñu ko ay enzyme bu jëloon fii sukkoor bu duggee rek dootul nekk sukkoor bu jëlee xorom bu duggee dootul nekk xorom kon la sunu borom ne lu weñ jël ci moom duñ ko mën a jëlaat scientifiquement dañuy gis ne loolu dëgg la loolu kon la ñuy gis sunu borom yàlla wax ci loolu borom bi nag ne nit ñi day nattu ñu yàlla dëgg-dëgg nattu te mbokk xam nga lu yàgg indi shirk ci kaw suufa mooy jàpp yàlla dafa sori il faut ñu amee intermédiaire yi ñu doxalee suñu digganteeg moom loolu mooy indi shirk bu mas a am yéefir yu jëkkee bu ñu leen masaan wax lu tax ngeen jaamu xërëm yi ñu ne mais ñun ku bind asamaan ak suuf ñu ne yàlla kuy rey yàlla kuy indi taw bi yàlla lu tax ngeen di jaamu xërëm ñu ne wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa dañoo bëgg ñoom ñu jegal ñu yàlla sunu borom nag ne ma qadrullah xaq qadri ndax yàlla soxlawul ku koy jegal ay jaamam am déet yàlla gën a jege ñépp ay jaamam loolu tax suñu borom won ñu ne xam leen ne borom boobu mooy alqawi al aziz mooy dara lott ko ay tey waxumaa yow boo waxee dégg na boo jëfee gis na mais xataa li nekk si biir dënn sax xam na ko ndax dara tëwu ko jalla wa ala borom boobu dañuy gis mu ne mooy tànn ay yonent ci malaaka yi yónni leen da doon jibril la wala mikail la wala kum mën a doon koo xam ne da koy jox mission mu ñëw ci jaam yi di wax ak ñoom tànn it ci la nga xam ne nit ñi ay yonent nit ñooñu kam ci jëkk a tànn mooy nuux alayhi salaam moo jëkk a nekk rasul aadama nekkoon na nabi mais rasul ku indi mission indi risala ci nuux la jëkkee kan moo ci mujjoon mooy sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moom benn jullit bañ ciy sikki sàkk allahuma am na ñoo xam ne ni cheytaana ñëw na nax na leen ñu bëgg a contourner aaye bi te mooy muhammad mooy xaatama nabiyin dernier yonent ñu ne waaw d'accord nañu muhammad mooy dernier yonent waaye muhammad moomu moo juddu woon ca màkk moo judduwaat fii ci Sénégal waaw loolu am na ñoo xam loolu la ñuy wax mbokk jullit mi ngi noonu moo taxit sunu borom yàlla comme day réeral aji tooñkat yi mooy bañ ko waxee mu neex dolli nañ ne isa ibn maryam it judduwaat na ca kër ga muhammad juddoo am déet loolu mbokk da ngay gis ne ak ne xoon mu xew pologne wala mu xew indonésie waaye malheureusement ci sénégal la xew malheureusement ci ndakaaru gi la xew ay nit di taxaw ne yonent yàlla muhammad ma nekk ci xabru ba ci madine déedéet ñu ngi ko suul fii ci dakar ah yonent yàlla isa bi sunu borom yàlla dig ñi dañoo fi axiri zaman yonent bi alayhi salaam wax ni day wàcc axiri zaman ñu ne non non non judd na dakar ba ñu ngi ko suul fii dakar ah loolee mbokk da ngay gis loolu muy mbir bi ala kulli xaal sunu borom yàlla jalla wa ala mu ne déedéet man may tànn ci ki mu mujjoon tànn mooy yonent yàlla bi borom bi mu ne mooy aji dégg lépp mooy gis lépp borom boobu nag mooy ki nga xam ne soxlawul intermédiaire sa digganteeg moom lépp lu fi jiitu woon dara réeru ko ci lépp luy ñëw seen gannaaw dara réeru ko ci looloo tax yonent yi alayhim salaam dana leen dajale gëdd leen waaye yéen lu ñu leen tontu mu ne ah yow mi yàlla yow sunu borom ñun de xamuñu mu ne waaye isa yow lan mooy sa mbir isa ne ah man de xawma ndax yaa wax nit ñi ñu jaamula sa gannaaw déedéet yàlla mosuma ko wax man kay ba ma fa nekkee seede woon naa ci ñoom ba ma demee nag yow yaa fa desoon ak ñoom kon yaalamu ma xalfahum loolu ci yàlla la mbir yépp di dellu loolu tax ba nga la yow doomu aadama ëppalal sa bopp nga am soxla di ko diis jibril wala mikail wala muhammad wala ibrahim waxuma keneen ku dul ñoom yàlla moo yor lépp bi yadihil mulk lépp ci loxoom la nekk wa illahi turjaul umur booy ragal ragalal yàlla booy yaakaar yaakaaral yàlla booy ñaan ñaanal yàlla directement te xamal ne kenn ni yàlla waxe ne mboolem bindaa fa ne buñ daje woon mënuñoo bind benn weñ naka noonu mboolem bindaa fa ne buñ daje woon mënuñu laa jëriñ mënuñu laa lor lu dul loo xam ne dafa neex yàlla yàlla dogaloon ko ci yow yàlla na yàlla wërsëgal ñu gëm loolu
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير barakallahu fiikum sunu borom mu ne yaa ayuha nnaas ey yéen nit ñi yaa ayuha allazina amanu ey yéen julit ñi irka'u wasjudu dee leen ruku dee leen sujud wa'budu rabbakum ca ngeen jaamu seen boroom wafaalul xayra ca ngeen di def aw yiw la'allakum tuflixuun ngiree ngeen doon aji texe wa jahidu fi llahi xaqa jihaadi te jihaad leen ci yàlla dëgg-dëgg jihaad huwa jtabaakum yàlla moomu moo leen tànn wa ma jaala alaykum fi diini min xaraj te deful ñeel leen ci diina ji benn xat-xat millata abikum ibrahim mooy yoonu seen baay ibrahim yàlla moomu huwa sammaakumul muslimin moo leen tudde woon ñu ko jébbalul min qablu ci lu jiitu lii وفي هذا أكي القرآن جيت ليكون الرسول شهيدا عليكم ngiree yonent yàlla bi nekk seede ci yéen wa takunu shuhadaa ala nnas yéen tamit ngeen nekk seede ci kaw nit ñi fa aqimu salata wa atu zaka na ngeen di taxawal julli cay joxe azaka wa atasimu billah te yéen ñëpp ngeen bokk mooy ci yàlla huwa mawlaakum yàlla dong mooy seen péete fa ni'mal mawla aka baax ku ñuy féetewoo wa ni'mal nasir aka baax kuy aju kuy dimbilaate mi ngi noonu mbokk suñu boroom daf ñoo woo ci saar bi ci ñun ñëpp ya ayuha nas yéefér ku dul yéefér amma ci tëjte gi moo woo ñaka ca gëm ey yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm dee leen rukkoo dee leen sujud ca mbokk loolu di lu gën a tedd lu doomu aadama yi def ci kaw suuf nga xam ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala da ci wone teraanga bu mu defal doomu aadama tey yow boo rukkoo yaa ngi jël position bi xar yeeg fas yeeg yooyu jël soo paree nga siggi taxaw loolu tax ngay wax sami allahu liman hamida rabbana laka alhamdu sant yàlla est ce que ni nga taxawee fas yu mën na ko fas yu mënut loolu gannaaw ba yàlla may la flexibilité boo xam ne da nga dem sujuuti lemu comme ni mbott yi lemoo jël sa jë teg ci suuf comme ni ko jaaneeg yeneen di di defee gannaaw ba jóg toogaat ba nga xamee ne position yi doomu aadama mën a def ci julli amul benn rab buy dox ci kaw suuf boo xam ne mën na loolu rukkoo leen sujut leen au minimum au minimum da nga rukkoo 17 fois par jour da nga sujud 34 fois par jour mooy bu dee doo def benn naafila waaye mbokk xoolal ki nga xam ne chaque jour yaram bi dana ko lem ci 17 mouvement rukkoo 34 mouvement de sujud loolu mbokk da ngay gis doy na sport te wallahi boo demee même ci scientifique yi wax nañ ci yu bari doomu aadama bi su rukkoo ni nga xam ne noonu la organisme bi di amee ay changement yu ci am bu su juutee ni deret ji di changer ba xatta magnétisme bi nekk ci suuf sax bu ci tegee jéem nam koy mën a décharger ci yu bari ala kulli xaal loolu ay yeneen xam-xam la loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax soo demoon tey dëkk yu mel ne Chine am na ci ay villes yoo xam ne dañuy am ay sonnerie suñ toogee lu ma deux heures de temps ñu sonné fu ab chinois nekk taxaw def ay mouvement doog a jàll ndax dañ ne yaram bi waroo koo bàyyi rek mu ay heure yi heure fekk deful mouvement amma ñun suñu borom moo ñu faratal cinq fois par jour da nga taxaw def ay mouvement am déet et mouvement yooyu au minimum dana nekk 34 34 léegi boo ci boolee 17 loolu ma la 50 nanga mouvement yoo xam ne ni faratal ci jurit bi mu def ko par jour loolu mbokk mooy sunu diine ji nga xam ne dafa complet ci wàllu gu nekk dee leen rukkoo dee leen sujud ca ngeen jaamu seen boroom mbokk jaamu yàlla mooy lépp loo xam ne yàlla santaane ko ci ay jëf yu mu bëgg ci làmmiñu yonente bi sunu boroom mun a taxaw leen ci looloo tax itamit bi sept fois par jour comme ni ñu la ko waxee da nga taxaw sa kanamu boroom yeesal engagement boobu suñu borom moo ne wa'budu rabbakum di sept fois da nga taxaw ci kanamu yàlla ne ko yàlla iyyaka na'budu iyyaka nasta'in yàlla yow dong laay jaamu ci yow dong laay dimbali ko def leen yiw ca mbokk julit day fexe ba lu muy def mu yëg ni lii muy def yiw la lépp loo xam ne yaa ngi ci jëm ca nga xam ni du yiw ngal la waay julit bul def loolu sunu borom mu ne man ya'mal misqala zarratin xayran yara lépp loo def ak lu mu tuuti tuuti ci yiw da nga mës a gis conséquence bi adduna ak alaxira naka noonu it man yaamal misqala zaratin charron yara loo def ci lu bon da nga gis conséquence bi adduna ak alaxira noonu ñu yàlla sante def leen yiw noonu la ñu sante wax leen yiw mi ngi noonu na ngeen wax yiw ci aaya yu bari loolu i tamit son borom nee na bu ngeen ko defee de da ngeen texe texe dëgg mbokk mi ngi ci taxawal julli wéetal yàlla ca di wax yiw wa qulu linnaasi xusna di wax yiw loolee sunu borom mu ne bu ngeen ko defee ngeen texe day won ne buñ ko deful lu ñu texe te yàlla dana ko feddali ci saar bi ñu jëm loolu mbokk da ngay gis ne aaye bi sunu mbokk bi Ousmane jàng na ko sujuutul dañu xam ne sujuuti alquran yi nekkul ay waajib Omar ibnul Xattaab xutba na ci kaw minbar yonente bi alayhi salaam tari suratu naxl am na sujud ba mu yeggee mu wàcc sujud am yeneen ajjuma mu ñëwaat di tariwaal suratu nax li gis gaa yi defar seen jekkawaay mu ne hey lii yàlla farataalu ko ci ñun ku ko sujud baax na ku ko sujootul it amul benn problème daal di jàngoroom bu sujootul loolu benn la donte ni même sujud bi ci suratu xaj ji borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf la ëpp ci ñoom dañ ne place sujud la mais am na ñoo xam ne dañ ne du sujud du place sujud xaj benn sujud la am comme yeneen saar yi comme nañu amee ixtilaaf ci li ñu tudd al mufassal diggante qaaf jëm suuf da ngay gis ni saar yi ca am sujud lu mel ni inshiqaq lu mel ni iqra am na borom xam-xam yoo xam ne ni du place sujud al muhim lañ ci jublu woon rek mooy soo ko jàngee sujud am nga tuyaaba mais xamal ne boo ci sujudul it amul benn mushkila mi ngi noonu sunu borom gannaaw loolu mu ne jihaat leen ci yàlla dëgg-dëgg jihaat mbokk nu ñuy jihaati ci yàlla mooy nga def effort ci santaane yi nga jëm koo taxawee bàyyi tere yi da nga xam ne nag am na ñeenti noon yoo xam ne ñi ngi taxaw sa kanam loolu il faut nga bàyyi ko xel bokk na ci noon bi gën a mag mooy sa bakkan bi doomu aadama amul noonam bu gën a mag bakkanam ñu ngi noonu la ñu tudde jihaadu nafs na bakkan bëggul lu lu baax mi ngi noonu su ko defee il faut nga xeex ak moom boo xeex ak moom na bu yàggee lu baax loolu ak lu metti metti day mujj yomb ci yow lool sunu borom nee na jullee ngi nii innaha la kabiratun illa ala al xaashiin bu yàggee day mujj neex ci yow gannaaw ba itamit nga xeex ak li nga xam ne mooy cheytaan mbokk na nga xam ne cheytaani sa noon la inna cheytaana lakum aduwun fattaxizuhu aduwa cheytaani seen noon la amul lu baax luy bëgg a def lu dul mi ngi taxaw pour yàqal la ko looloo tax léegi avant ñuy jàng ñun ñëpp ñu wax aouzu billahi min acheytaani rajim xam naa kay bu ñu nekkee ci néegu yàlla bi timtéeram yàlla bi mën nañu wax mucc nañ ci cheytaan waaye déedéet sunu borom moo ko kattanal may ko pexe mu mën a dugg xatta ci xolu doomu aadama kon kooku sa noonu la fokk ngay koy bàyyi xel di ko muslu di xool ay pexem di ko moytu muy xutuwaati cheytaan ñetteel bi bokk na ci yéeféer yi nga xam ne ñoom dañoo déclaré guerre ouverte à l'islam pexe buñ man pour yàqal la sa diine pour décourager la ci dañ ko def mu amit ñeenteel bu gën a dangereux it mooy naafiq yi nekk ci biir jullit ñi naafiq yooyu nga xam ne ñu nekk ci biir jullit ñi soo bëggee julli soo bëggee def lu baax soo bëggee def lu bari ñoom ñoo la ci découragé te da ngay gis nax ci jamono yi ñu nekk jullit ñu bari problème bi ñu am ak naafiq yi amuñu ko sax ak yéeféer yi loolee kon di mbir boo xam dañ ci war a bàyyi xel jihaad boobu nag dara du la ci dimbali lu mel ne xam-xam kenn mënul xeexal ñeenti noonu yooyu ci xamuloo kon njëlbeenu arme ba ngay jëfandikoo pour jihad fillahi xaq jihaadi mooy fokk nga jéem a jàng sa diine jéem koo xam yal na yàlla yombal ko ci ñun sunu borom boobu mu ne nag man maa leen tànn maa leen tànn huuj tabaakum ca mbokk xoolal bi àdduna sosoo ba léegi lu ne nit ñi wax nañ ko ci am na waxkat yi sax duñ man ay 4 milliards da nekk yu kenn xamul ala kulli xaal sunu borom yow boole la nga nekk ci diine ji nga xam ne mooy téere bi gën a màgg ñoo ko yor yenent bi gën a màgg ñoo ko yor shari bi sharia bi gën a mat ñoo ko yor yàlla subhanahu wa taala boole la ci ñooñu mbokk loolu tànneef la loolu dañ cee war a sant yàlla huuji tabaakum yàlla mu ne maa leen tànn boole leen ci diine ji ba pare diine ji defalu ma leen ci benn xat-xat benn xat-xat ku munta taxaw julli toogal ku munta woor dogal aj makkaa ngi nii ku mënul teggi na la zakat ku mënul teggeeku na la amoo ndox boo jàppee tiimal ila axiri amul benn xaraj koo gis mu sonn ci diine rek daa xamul mi ngi noonu koo gis diine sonnal ko rek dafa xamul ma jaalaalikum fi diine min xaraj seen bàyyi ibrahima fii la jaaroon te ibrahima alayhi salaam moom la sunu borom wax ne moom la natt woon ci ay kàdd mu matal ko sunu borom def ko imam ñeel ñiy ñëw gannaawam ñëpp ñu nekk ci mu nekk seen royukaay li naa si imama mooy seen bàyyi ci diine bàyyi ibrahim alayhi salaam doonte ne boo ñëwoon sénégal créé nañ téeméeri bàyyi nangam bàyyi njaay bàyyi jóob bàyyi ca ñama ñamee tudd gis ngeen ala kulli xaal nañu xam ne sunu royukaay dëgg te yonente bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon pour mottali sunnaam mooy ibrahim alayhi salatu wasalaam sunu borom mu ne moo leen tudde ay julit am na ñu koy delloo ci ibrahim waaye la gën a jub mooy sunu borom huwa jitabaakum wa huwa sammaakum muslimin yàlla moo ñu tudd ñu ko jébbalul te naam islam mooy diine bi nuux indi woon moom la aadama yoroon moom la ibrahim muusa yoroon waaye ñun la yàlla tudde muslimin ñu nekk ñoo xam ne dañ koo jébbalul li waral loolu mooy yàlla tuddoon na ko ci téere yu jëkk ya mooy ñi topp muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom ay muslimun la ñuy doon tudd leen ci alquran tudd leen ba tey muslimin ndax yowmal qiyama yàlla dana indi yeneen ci yàlla bi mu seede leen ne jottali woon na la yàlla bëgg waaye yéen xeetu muhammad yéene seede mbooleem xeet yi leen jiitu woon ba baa yeneen ci yàlla nuux alayhi salaam mi ngi noonu kon léegi sant leen yàlla ci loolu nu ñu sante yàlla ci loolu mooy taxawal leen julli te mbokk julli googu mooy sant yàlla bi gën a màgg bu doomu aadama ji def yonent bi alayhi salaam bi ko yàlla defalee lu mu defalul kenn da daan taxaw guddi di naafila ba tànkam yi funki ba tànk yi xar mu boole koog jooy yu metti ba sax ñu koy fàttali ndax da nga fàtte yàlla baal na la sa mboolemi bakkaar mu ne waa afala akuna abdan shakura yàlla defal na ma lu ma deful kenn ndax duma ko defal lu ko kenn defalul looloo taxit ba jeune sahaba ya kenn ni musu cee mën a ànd ak moom naafila mi ngi noonu wala boo ko defee ëllëg doo ko dollee te gis ngeen ndax taxawaayam ba ku wedd laajal xusayfi nee na ba ma bis fanaan naag yonente bi alayhi salaam ma gis ko mu jóg guddi ma jóg topp ci gannaawam muy commencé ubbi suratul baqara di jàng di jàng di jàng mu ah way mbir mu yàgg ne di waay muy jàng mu ne ah xanaa da ko bëgg a def ñaari rakk waaye mu dem ba ci digg ba continué ma ne hee kii da koo nar a tari de yonent bi jàng jàng jàng jàng ba dóor baqar bu féete gannaaw ma ne alhamdulilah rabbil alamin mu ubbi suratu nisa yaa ngi dégg mu jeex mu ubbi ali imran ñetti saar yooyu mbokk boo ko xoolee essayel ëllëg nga dem sa kër di ko tari au minimum dana la jëlal trois heures de temps lu tax ndax nee na amul aaya bu mu romb ñu cay wax mbugal lu dul taxaw na ñaan yàlla mu musal ko amul benn aaya buy wax rahma yërmande lu dul taxaw na ñaan yàlla yërëm ñaan la yàlla yërëm ko ci benn taxawaay sallallahu alayhi wa sallam ba muy rukkoo it xaw na def lu mel noonu kon mbokk loolu la ñuy sant yàlla waaye mbokk sant du loo xam ne ñun ñii ñi dëkk unité 21 yépp moo ñu tere nelaw biig ñu ngi noonu léegi am nañ fi ak cant goo xam ne ñi dëkk 21 yépp kenn nelawul tëgg fecc yuuxu naani kafe ba pare jàpp ne loolu ak cant la wallahi mbokk loolu njuumte la sunu doom yi ca nekk ñi ngi leen di laaye biir ku ci dégg suñu kaddu na ko jot li keneen nañuy sant yàlla mooy nañuy taxawal julli nañ ñëw ci néegu yàlla bi di julli di woor di def lu baax di jàngal quran amma ay ndënd tëgg fecc loolu wallahi nekkul ak cant amul benn diine bu ko yàlla subhanahu wa taala masa santaane kon borom boobu mu ne taxawal leen julli taxawal julli dañ cee war a mbokk góorgóorli ah saar bii di ñëw danañu ci wax lu bari nañ taxawal julli ca loolu del ñaan yàlla boole la ci ñuy taxawal julli naka ibrahima defe woon gannaaw ba di leen joxe azaka te mooy képp ko yàlla may nga denc dara ca banque ba denc nga loo xam ne nekk na trois cent et quelques mille denc nga ko ren ba déwén nga la waay jëlal sa machine à calcul divise ko par quarante lam la jox masalan 400000 divise par 40 muy 10000 10000 boobu nga jël ko joxe ko ay fuqara ak masakin ya ka yeewoo naka nekk 1 million 25000 ila axiri loolee xamal ni moog julli la yàlla subhanahu wa taala lënkale ci aaya yu dul jeex borom boobu it gannaaw ba mu ne ngoy leen ci yàlla ngoy leen ci yàlla mbokk yàlla def na nañ ngoy ci moom waaye xoolal li ngeen dégg ci rajo ak télévision yi jafandu leen ci caam jafandu naa ci caam jafandu leen ci caam ila axiri mbokk su ko defee loolu la ñuy doomu aadama yi wëlbati nañ seen xol looloo taxit ñi yàgg dégg loolu judd ci yaru ci bu ñuy daanu au lieu ñu ne ya allah dañoo yaa caam ah ya cheikh fulaan ya cheikh fulaan ya cheikh fulaan te sunu borom def ne wa'tasimu billah mooy leen ci yàlla yàlla rek yor seen njëriñ yàlla rek moo leen mën a fanqal lor alaxira yàlla dong moo leen mën a teral yàlla dong leen mën a mbugal kon kay waatasimu billah huwa mawlaakum amu leen ku ngeen di féetewoo ku dul yàlla waaye malheureusement bu dee nit ñi kenn jàngalatu leen alquran buñ leen dajalee luñ leen di wax la bàyyi di waxoon la mam di waxoon la bàyyi di waxoon la mam di waxoon ila axiri nu ñuy xamee seen warugar wa atasimu billah huwa mawlaakum sunu borom mu ne fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir aka baax ku ñuy féetewoo aka baax kuy dimbali waate su ko defee nga la waay yow mi may déglu fexel ba guddik tey gi bul wooti keneen ku dul yàlla heure bu ne yaa cheikh diw ne la ilaha illallah wax la astaghfirullah nga ne la ilaha illallah heure boo jàqee ne diw nañu xeccali parce que yàgg nga ko wax waxal astaghfirullah nga wax la ilaha illallah mbokk sunu borom mi nga noonu mooy ni'mal mawla di ni'mal nasir yàlla na yàlla féete wu ñu àdduna ak alaxira mi ngi noonu insha allah cheikh ousmane ubbil ñu suratul mu'minun